waxee rek ne mooy jaamu yàlla bi ëpp importance bi ëpp solo mooy li nga xamante ne nii mooy julli mu ngi la doon wax démb ci fukk ak ñaar yi nga xam ne noo def nga tënk ko matale ko pour mun a am li ñuy wax julli gu baax muy julli gu wér comme ni nga xamante ne noonu la ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ñu jële ci an abi darda radiallahu taala anhu mu ne akramul ibadi ala allahi alladina yuraawuna samsa wal xamara ab darda daf ñuy wax ne ki gën a tedd ci jaamu yàlla yi wala ñi gën a tedd ci jaam yàlla yi mooy ñi nga xamante ni dañuy sàmm jant bi di sàmm weer bi ñu ne ñan ñooy sàmm jant beeg weer wi mu ne mooy noddkat yi ndax fu toll ñoom ñi ngi calculer heure bi fu mu toll waaw kii sàmm dara yaa ngi koy surveiller di ko xool ñoom nag fu ñu toll ñi ngi sàmm heure bi ngir lan ngir mën a noddu ngir nit ñi waajal ngir mën a julli nee na nag bon jaami ñooñu nga noddkat yooyu nga xam ne ñoom fu ñu toll ñu ngi waajal heure bi di sàmm jant beeg weer wi nee na ñooy jaam yi gën a tedd waaw ndax kat kullu man yuraayi waxta salaati min al muslimina waaw mu ne képp kuy sàmmanteeg waxtu julli yi mu ne ci julli di nga bokk moo tax ñu jëlee ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne inna salata mardatun li rabbi tabaraka wa taala julli dafay kontaanloo suñu borom subhanahu wa taala waaw nee julli daf koy bégal xam nga waxuma la sax sa borom waaye sa patron rek souvent soo xamee li mu bëgg rek da nga koy def pour muy bég waxatuma la yàlla mi la sàkk yàlla nag julli daf koy bégloo mu ne ah mu ne wa xubbul malaa'ikat yi dañ lay sopp jullikat malaaka yi dañ koy sopp mu ne wa sunnatul anbiya nee na julli mooy yoonu ñi nga xamante ne nii ñoo yonent yi jiitu woon seen sunna mooy julli mu ne wa nuurul maarifa nee na julli mooy leeru xam xam sa nit ki pour mu xam yàlla noo def muy julli ku dul julli du xam yàlla bon lumière bi lay alimenté boo tax nga mën a xam sa boroom nee mooy julli mu ne wa aslul imaani nee na julli mooy cosaani ngëm yàlla wa ijabatu du'a nee na julli mooy nangu ñaan mu ne ah mu ne wa xubulul amal nee na julli mooy tax sa jëf yi ngay def ñu nangu ko jullee tax ñu nangu bu fekkee ne doo julli beneen jaamu yàlla boo mën di def yóbbul nit ñi màkka del dem màkka at mu jot tabaxal eh, téeméeri juma ak loo mën def ci lu baax nee na boo dul julli sunu borom gisu ko doo ci am dara ëllëg nee na nag pour ñu nangu sa jëf yu baax yooyu ngay def sa jàng alxuraan yeeg woor yeeg asaka yeeg dem màkk yeeg yëpp pour ñu nangu ko neen da ngay julli bon dal julli mooy wa xubulul amal mooy tax ñu nangu sa jëf yu baax yi ngay def ndax yonent bi sa alayhi wa sallam jàngal nañu ko nee na ko yowmal qiyam ëllëg li ñu njëkk a xisaab li ñu njëkk a réglé ci doomu aadama bi mooy julli su julli baaxee rek ñu doo ko xool yeneen li ci des julli baaxul nag kenn du xool li ci des yëpp dañuy boole taxañ yàgg yàgg doon defoon yóbbu safara yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu ne asalaatu imaadu diin fa man aqaamaha faqad aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin julli mooy kennu diine ku ko taxawal taxawal nga diine waaye ku bàyyi julli rek bu nga diine mu ne ah mu ne wa barakatun fi risq ndekete jullikat mooy barkeel wërsëg li la yàlla di wërsëgalee ëllëg pour yàlla lu baax la nga ciy def yàlla mën la ko fay mu ne ah nga lekk ci sax ñu julli ci ñu fay la ci nee pour nga mën ko am ëllëg mooy da doon julli boo amoon nekkoon multimilliardaire te doo julli sa wërsëg amul barke ndax lu tax duma la rek lañ lay jëriñ ëllëg yokk duma rek bon kay wërsëg bu barkeel borom dafay julli mu ne wa raaxatun lil abdaan nekk te julli day nof noflaayu yaram la ndax bëri naa bëri na kii takk daalam di sport yi bu doon julli rek julli sport la waaw ndax sa cër yëpp dana yëngatu ñu war yu war a lemu danañu lemu yu war a tàllal danañu tàllal wa silahun ala ahdaai nee na jullikat ngànnaay la ci say noonu waaw julli la sa diggante say noonu mu ne ah mu ne wa karahiyatun li li nee na julli day tax seytaane sib la waaw ku seytaane sib nekk sa affaire bu baax dem ba yow seytaane bugg la ndax lu tax parce que julli diw kay seytaan da ko neex bëgg na ko ndax lan parce que du julli fonkul julli mu ne ah mu ne julli it mu ne ah mu ne wa shafiun bayna saahibiha wa bayna malakul mawti julli dafa nekk loo xamante ne nii dafay ràmm diggante nit ki ak malakul mawti bu malakul mawti jël sa ruux nee na julli lay ñëw taxaw ba buy jël sa ruux du metti ndax lan parce que da nga tàmmoon julli da nga daan julli bon miin julli wala di julli saa su nekk dana tax ëllëg booy génn àdduna sa dee du metti mu ne ah mu ne it wa siraajun fil xabri fii xabrihi ndekete boo kat kiy julli dafay nekk làmp ci xabroom wa firasatun taxta janbayhi nee na bu ëllëgee bu ñu la dugalee sa bàmmeel sax nee na julli mooy nekk sa lal fa ngay tëdd ca biir bàmmeel ba nee na julli ci kaw julli ngay tëdd wa jawaabun maa munkarin wa nakirin munkar ak nakir moom nga dégg ñu naan soo dee ñoom ñoo ñëw fekk la ci bàmmeel bi fëgg la nga jóg ñu laaj la ñu ne bu boobaa boo daan julli jullee leen di ñu ne ah mu ne it jullikat wa mu annisun fi xabrihi yow yawmil qiyaama day wéttali boroom ci xabroom ba koor yawmal qiyaama julli day toog di la wéttali waaw lii yëpp julli di la ko defal ndax bon jaadu na yow sabab ngay sàggan ci lan ci julli waaw yii yëpp julli moo la koy defal ndax kenn war naa sàggane julli kenn waru ko sàggane mu ne yemul ci loolu rek de waaye nag fa ida kanat alqiyamatu saarat alsalaatu dillan fawqahu buñ demee ba dekkee nee na julli mooy nekk niir boo xam ne moo lay tiim di la keral ndax nit ñi tàngooru métti lañuy nekk guddi du am jant amul ñu ànd ak lëndëm gu métti wa tara naasu sukaara wa maa hum bi sukaara walakin azaballahi sadid koo gis mu mel ne dafa màndi te màndiwul fekk ne mbugalu yàlla mi rek moo metti mu ne boobaa nag julli daf lay keral yow mi daan julli mu ne yemul ci keral la rek waaye wa taajan ala rasihi day nekk mbaxane sa kaw bopp wa libaasan ala badanihi julli day nekk ay yére sa kaw wa nuuran yasa bayna yadayhi julli mooy nekk leer lumière bi nga xam ne si kay doxee julli mooy nekk lumière bi lay niital ngay koy doxee ndax wax nañ la bu ko yomal xam bu nit ñi dekkee wa isal bihaaru sujjirat géej gi dañ koy taal te buñ taalee géej gi nit ñëpp war nañu dox pour daje fi ñu leen di ate waaye yemul ci taal gi rek waaye wa isal bihaaru fujjirat géej gi day bal di daw go fe nit ñëpp ay dox ba daje benn place jinne yi wër leen malaaka yi wër leen wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji a yawma izin bi jahannama yàlla ñu yàlla yërëm mu ne bon julli mooy nekk sa lumière bi ngay doxee ko rek yow mal xëy am boo dekkee waaye it wa sitran baynahu wa bayna naar nee na julli mooy nekk défense sa diggante ak safara ba doo fa mën a dugg wa xujjatun lil muminina bayna yaday rabbi tabaraka wa taala jullikat ëllëg mooy ki nga xam ne mooy plaidel jullit ñi diggante ak seen borom mooy nekk sa lay sa diggante sa borom lay bi nga gën a am bi gën a mag mooy julli mu ne kat yemu ci loolu waaye nag julli it ëllëg mooy diisal sa balance yu yiw boo amee balance yu yiw fa amaa man saxulat mawaazinu fa huwa fi ishatin raadiya dafa fekkoon nga daan julli boo dul julli sa balance du am dara yiw ndax yu baax yoon def kenn ko nangu ban dara lu baax du fa nekk mu ne ah mu ne yemul ci loolu wa jiwaazan ala siraati ndekete kat julli mooy tax nga mën a jéggi siraat ëllëg siraat boobu ñuy wax pont safara boobu ak yëngatu baak ñawaay baak raglu ba neen lay tax nit mën kaa jéggi ba mucc ca julli wa miftaaxan lil janna mooy nekk sa caabi àjjana ëllëg moom julli ñu ne waaw li anna salaata tasbixun ndax jullikat ay sàbbal la yaa ngi jënga joxe wax subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal ala mu ne ah, moo tax miidul ay sant yàlla la ay sami allahu liman amidahu yaa ngi sant yàlla ci biir julli gi hamdan kasiran tayiban mubarakan yëpp yaa ngi koy ci biir julli gi mu ne ah, wa taxdiisun julli sellal la wa taazimun julli màggal sunu borom la wa xiraatun julli jàng alquran la wa duaun julli ñaan la biir julli yaa ngay ñaan wa inna afdal al amali kulliha assalaatu li waxtiha bon daal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne jëf yëpp ba ca gën mooy julli ci waxtu wa bon looy mën a def rek fexeel ba julli ci waxtu wa waaw moo tax démb waxoon naa la ne amoon na fukk ak ñaar yoo xam ne su baaxul su ci benn baaxul julli du baax incha allahu rabbi dañuy bàyyi ban ba suba ak jàmm ñu ñëw ci fukk ak ñaar yooyu ñaan yàlla yàlla defal ñu ak dégg ak topp yàlla yàlla nangu suñu koor ak suñu xeetu jàmm yàlla yëpp budul koor